salaamaaleykum mbokk yaakaar naa tey nag ñu ngi fi ci parcelle nag euh, tey ñëw nag euh, fan parcelle unité ci xam ne mooy kër soxna Aida Saliou soxna Aida Saliou nag buñ ko waxee yaakaar na ñëpp war ko xam soxna Aida Saliou le grand voyant nekk fii ci parcelle macha allah di xam ne euh, tey mu koy def ci weeru koor muy ndimbal boo xam ne da koy def ci weeru koor tey pour jaamu yàlla yaakaar naa soxna Aida Saliou nag lépp loo xam ne am na ko ci liggéeyam rek delloo na ko li nga xam mooy askan wi borom pomaat yi macha allah lu mu gis lu mu def rek yàlla ne waaw macha allah mu jubóog yàlla nag ah di koo xam ne nag jàmbaaru Serigne Saliou la ci lépp nag jàmbaaru Serigne Saliou lépp loo xam ne Serigne Saliou woote na ko rek macha allah ku comme ci ëppalewul kenn ëppalewu ko ci muy nag ah kan nag yaay Wally Ballago Seck yaay framaren bi le centre du peuple le soir du peuple Wally Seck yaakaar naa nag lii la doomam di def moom itam mu ñëw encore ne lii macha allah yaakaar naa moom itam lii rek moo ko ñor kon nag yaakaar naa dañ ne doom ja ndey ja kon lépp loo xam ne soxna Aida Saliou da koy def ci euh, euh, li nga xam ne mooy ndimbal rek Wally Seck itam yaakaar naa ci la ko fekk muy doomam muy léppam àdduna yëpp xam ne mook Wally Seck benn lañ yaakaar naa tey nag muy joxe ay ndimbal ci weeru koor bi tey gis nga macha allah nit ñaa ngi rang fii yëpp gis nga macha allah bi ñu duggee ci biir gis nga saaku ceeb yi macha allah ay toni ton la fi wàcc tey te lépp commencement la nag tey la premier jour muy joxe te lii muy joxe nag kenn ñëwagul ay nitam la ay nitam kenn ñëwagul moom doole boppam la loo xam ne moo ko génne ci poosam tey commencé ko nga xam ne mooy léppam di buntam di doomam di léppam tey Wally Ballago Seck ñëwagul ci ndimbalam boo xam ne da koy jox pour mu jox ko askan bi parce que moom lépp loo xam ne jaar na ci loxoom rek askan bee ko moom muy soxna Aïda Saliou tey nag ñu ñëw fii ci parcelle tey ngir li muy joxe pour nga xam ne mooy koor gi Ibrahima da mooy topp rek mu dugg ci biir xool image yi wax ak euh, askan bi jërë ngeen jëf. ngi nii jàmbaaru Serigne Saliou ji jàmbaaru yàlla suñu borom jaa ngi nii muy jàmbaaru Serigne Saliou ji maire yaa ngi naan jërëjëf kii mooy jàmbaaru Serigne Saliou ji lépp loo xam ne joxe na ko tey ci poosam la jógee jaaral ne jaaral ne mënoo jaar fii poosam la jógee tey dencul dara amul banque amul leneen lépp loo xam ne am na ko ci askan wi da ko dalawaat ci réew da ko dalawaat askan wi joxe na plus de ay ton ci biir jeex na soxna ñu ngi lay ziar waaw jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëf sëriñ Touba Seexul Xaddim waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi am ñi ngi am mbégte waaye ñi ngi am kontaante waaye ñi ngi am ak cant ndax lii bokk na ci ak cant te jaam dafa war di sant lii yëpp ci xeetu cant la ndax képp ku ko fii jël si rek ñan naa yàlla bu déwénee nga bokk ci ku koy joxe barke sëñ Touba nit nag boo nekkee cim réew dangay def geste geste mooy lii waaw samay dëkkandoo laa ko jox samay mbokk laa ko jox samay xarit laa ko jox jox naa ko ku ma bokkal jox naa ko ku ma xamul jox naa ko ku ma xam mais ñëpp ay jaam lañu ta ay jaam ñëpp ci lañu bokk lii nag ak cant la du yëfu état du yëfu yëfi benn état laa am man benn nguur laa am benn état laa am benn secours laa am muy sëriñ saaliw moo ma def ni ma mel bu ma santee seexul xaddim sëñ Touba sëriñ Saliou ma def nii ma mel nii mu ma def nag fas yéene naa ko bokk ak askan wi ci lépp lu mu mënti doon rek bëgg naa cee def sama doole na ma ñëpp ñaanal wér wér rek laay ñaan euh, ndax euh, sama sama lépp rek liggéey bu sëñ Touba la waaw xeebu ma nit ba tax ma jox la lii yabu ma nit ba tax ma jox la lii damaa xam ne dama nekk jaam boo xam ne amoon na ay jamono ku ma ko jox ma jël kon su ma ca tollee dama koy joxe lii rek laa ko joxee nag barke sëñ Touba te ku ma jox ren bu déwénee yàlla nga ko joxe. ni mais ñu ngi dégg boobu léegi yaa ngi joxe boobu léegi yaay booy maa ma tuuti rek ñu ngi dégg boobu léegi yaa ngi joxe mais loo ñëw ku ñëw nga ne ko sama doom ñëwagul Wally Ballago Seck parce que boo dee bundu këram nii lay may mel 12 mois yëpp nii mel loolu de weeru koor waa waali démb ci guddi rek déggante nañu mu ne ma yaay bugguma laa indi lu manqué suukar bugguma laa indi lu manqué damaa bëgg a complet yëpp te xam nga fi jamono ji toll ci suukar moom laay xaar na man mi sax suukar laa doon xaar moo tardeel sama lii waaw suukar waaye fexe naa ba am ko fexe naa ba am ko ci am gi ma ko am nag maa ngi koy bokk ak jaamu yàlla bu leneen ñëwaatee képp ku amoon di nga amaat ku amoon di nga amaat waaw ñëpp nag la ñuy woo nag ku mën na nga def li nga mën réew daal nii bu nu ko defee ci quartier bu ne nga bañ a xeeb li nga am réew mi kenn dootul jooy état kenn dootul jooy kenn ndax état bi tamit il faut ñu jàppale ko ndax munu dugg ci kër yëpp mais ñun daal ñooy sunu état bopp ci lii ñuy def ba ku ma ci fekk si fekk si ma ci waaye lii samay propre moyen la na ko àdduna bi yëpp du lu ma état jox du lu ma kenn jox samay propre moyen laa joxe te yéen àdduna bi yëpp di ma déglu xam ngeen ne sama yëfi bopp ak samay doomi bopp ak sama njabootu bopp waaye ñi war a jàpp daal ñëwaguñu jërëjëf dégg nga li wax rek macha ñi war a jàpp ñëwaguñ waa dafa mel ne kam kamera Ibrahima topp ma tuddi ma xool yaay booy jëlal ma image yi kii dafa mel ni jot na ba pare kii dafa mel ni jot na ba pare waaw yaay booy ziar nañ la. la raw ñoo la ziar man Asou laa tudd. Asou euh, maa ngi dëkk fii ci koñ bi unité 3 waaw. tey euh, macha allah ngay dëkkandoo ak ki nga xam grand voyante. Hmm. tey muy def teranga yi macha allah yaakaar naa du ma ne tey sax mais mu dëkk ci tey yaay booy tey nan nga gisee initiative bi nga xam ne moom def ci koor bi. xanaa kontaan rek. Hmm. ndax Soxna Aïda moom laa nekk waa koñ bi lu ñëw mu defar leen lu ñëw mu seddali leen teraanga am bokk ci moom borom mbaan mi lañ koy bàyyi ci barke Sëñ Saaliw yokk rek ba yëg ko moom lañ koy ñaana yal ko yàlla la fal cat may ko gudd fan bàyyi ko suñu waa ko ñi ndax dafa yàgg di ñu defar teraanga lu am mu bokk koog waa këram te bu ko doxoon yor xaalisam kat du ko bokkoo kenn du ko yemal ci waa këram waaye xew mu indi koñ lu xew programme ba am mu indi chaque tabaski mu def teraangam korte mu def teraangam màggal gàmm kon nga borom mbaal bi lañ koy bàyyi yal ko yàlla la fal cat bàyyi ko mu gudd fan ak waa këram yi bu ko dara wutu si ginnaawam loolu lañ koy ñaanal ci war ko weeru koor bi. ma daa mel jot nga jot naa ñun ñëpp ñoo jot waa teraanga bi waa ceeb diwlin. tàndarma suukar mhm. lii bu ko neexoon yemale ko këram waaye lu ñëw da koy ànd ak waa koñ bi rek di leen ko jox di leen ko berneel mhm. borom mbaar mi lañ koy bàyyi mhm. moo ngi ne jàmm rek lay am loolu lañ koy ñaanal macha allah dégg nga li mu wax borom mbaar mi lañ koy bàyyil macha allah yaakaar naa gis nga borom mbaar mi nag kuñ ko bàyyil yaakaar naa bàyyil nag jàmbaar muy soxna Aida mu Serigne Saliou le grand voyant nekk fii ci parcelle unité 3 yaakaar naa comme ni ma wax toujours rek lu mu jox na ko askan wi Aida mu Serigne Saliou euh, yaayu Wally Ballago Seck le centre du peuple le soir du peuple yaakaar naa këram tam boo fa demee nii lay demee même budul weeru koor tous les jours douze mois yi mënoo dem kër Wally Ballago sekk te fekkoo fa mbooloo mu toll nii toujours ñukki joxe amul poos lu mu am jox na ko askan wi day joxe joxe joxe ba jeexal takk dem banque waat joxe parce que nee na askan bee ko Sénégal moo ko ñor lépp loo xam ne am na ko jox na ko askan wi moom Wally tey nag ñëw fii ci kër yaayam parcelle soxna Aïda mu Serigne Saliou le grand voyant yaakaar naa ñëpp xam nañ ko àdduna bi demal Dubaay xam nañ kan mooy soxna Aïda Serigne Saliou demal États-Unis xam nañ kan mooy soxna Aïda Serigne Saliou foo dem ci monde bi même fu mu musul teg tànkam ñëpp xam nañ ko macha allah yaakaar na tey nag muy def lii duñ ne guleet lii ci parcelle parce que moom la dëkkee comme li weer bi wax sànq rek dafa jàng alxuraan te yaakaar naa mu ngi soixante-dix ans du wax loo xam ne maanaam wóoru ko parce que euh, bu tëddee moom ci bàmmeelam lay tëddee macha allah nee na kay euh, facture courant yi facture ndox yi ah ngénte yi ñi mu doom macha allah bëggul sax ko wax tey ñoo koy wax parce que ñun dañ fee nekk pour wone lu baax nëbbu lu bon barke Serigne Saliou ñun dañoo nekk élément Serigne Saliou du ñu wane lu bon mais lu baax dañ koy fësal barke Seexul Xadim pour ñu ko dul def suñu ginnaaw kon maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi Sénégal nekk julit dama bëgg nga roy ci jëmm ji. muy kan muy soxna Aida mu Serigne Saliou le grand voyant nekk fii ci parcelle nga roy ko ci lu baax macha allah amul lenn lu bon li may wax sax Wally Seck amul lu bon mais soxna Aida Saliou amul lenn lu bon parce que ka muy roy la muy kan Serigne Saliou Mbacké parce que jàmbaar jooju kat nii la doon def saa su ne Touba li yor yëpp da koy dellawaat askan li yëpp da koy dellawaat ne su doole yi kon soxna Aida Saliou kenn du moom ci mimi réew koy wax chaque yàlla li yombul tey mënoon na koo denc biir këram comme li bi wax di ko wala mu koy mais barke Serigne Saliou du denc man ñëw naa fi maintes fois barke alxuraan karim ñii dañuy rang ñii facture courant ñii facture ndox ñii seen problème ordonnance potar bi day génn rek ñii trente mille ñii quarante cinquante mille kon kooku tey bu defee lii tey man idaal yi du ma ne parce que du ma du ma fi gan tey damay dox tuuti rek jël nga xam ne tey ñooy askan wi ñëwal soxna Aida Saliou euh, gis nga macha allah soxna Aida Saliou voyante macha allah nekk fii ci parcelle mooy joxe li nga xam ne mooy euh, euh, ndimbal ci koor gi macha allah gis nga nit ñi niñ toll macha allah rang bi ci doomu aadama yi macha allah ñëpp kenn ku ne lii sa wërsëg di ko jot fii ci kër soxna Aida Saliou tey gis yaakaar naa macha allah mbooloo mi fu nekk la nit di jóge tey waaye képp ku fi ñëw rek di nga am li nga xam ne moom ngay moom nga war a yóbbu sa kër tey macha allah muy loo xam ne Euh, dañ ci mën a euh, xewlu bu baax a baax ci koor gi ak nu mu toll dañ ci mën a xewlu bu baax a baax dina am ay ay temps yoo xam ne macha allah doo manqué li nga xam ne xéewal la ci koor gi parce que xam nañ ne koor gi métti na xam nañ ne macha allah macha allah koor gi métti na mais euh, tey soxna Aida Saliou lépp loo xam ne am na ko dimbale na ko jaamu yàlla lépp loo xam ne tey euh, jëlee na ko ci euh, jaamu yàlla rek dalawaat na ko ci jaamu yàlla yaakaar naa kooku mooy soxna Aida Saliou euh, le grand voyant nekk fii ci parcelle unité 3 yaakaar naa àdduna yëpp xam nañ ko jooju ma koy wax du ma ne Sénégal mais àdduna xam nañ ko tey muy dox social nag 100 pour cent social bi nag moom da cee yàgg du kes ko koor gi rek moo tax mu ñëw ci mais social bi soxna Aida Saliou ba mu nekkee soxna Aida Saliou ba léegi di liggéey jàmbaaram di liggéey jàmbaaram ja muy Serigne Saliou moom nii la doon def Serigne Saliou li doon def euh, lu am jox na ko jaamu yàlla yi Serigne Saliou daawul yor ay million lépp lu amoon rek jox na ko jaamu yàlla yi moo tax képp ku koy rek euh, macha allah lépp loo am da koy delloo ci jaamu yàlla yi mbaax a a baax a baax nga képp koo xam ne jox nañ la diwlin jox nañ la suukar jox nañ la tàndarma jox nañ la li nga xam ne mooy euh, ceeb macha allah ak diwlin nag lépp ba ci poobar sax yaakaar naa lépp kon <coughs> fii ci parcelle kon gis nga macha allah rànk di mu toll mais am na ñu toogaat ba léegi sax mais képp ku fi teew rek incha tey di am li nga xam ne mooy diwlin ci kattan yàlla ak mbaaxam kon gis nga macha allah mbooloo maa ngi noonu ñu ngi joxe mu ngi noonu jëmm ji nga seen jëmm ji taxaw sol jàllaabi bi mooy euh, jàmbaaru Serigne Saliou muy soxna ayda Saliou mu ngi noonu. moo ngi noonu gis nga mu ngi noonu di waxtaan ak ñoom xaw ma luy waxtaan ak ñoom dal leen incha allah yéen ñëpp. waaw ndeysaan dëgg la loolu lay wax waaw am na solo loolu am na solo dëgg macha allah nee na ngeen rang dal rek képp képp ku ñëw rek incha allah lii sa wërsëg di ko jël bu soobee yàlla moom loolu lay wax saa ne mu ngi noonu ndeysaan dëgg mu ngi dal ak ñoom waaw. dëgg la dëgg la wallaay dëgg la allah na ñëpp dal rek ñëpp dem képp ku ñëw sa di ko am incha allah ci kattan yàlla macha allah. maa ngi fi man Fatou Gueye Fatou Gueye laa tudd waaw dëkk Waalo ga waalo ba waaw ñu ñooy soppee Aïda Sine Saliou waaw mais lii moom duñu nëggu leen daaw ñetti ata a moom lii lay def Aïda mi ngi ci ordonnance ya mi social yi mi ngi ci lépp ko am soxla ñëw dis Aïda Aïda defal la ko ñu bëgg dem ba ñuy appel nag la ñu daaneelal kon xam ne duñu nëggu leen tam xarit korite yëpp tabaski Aïda day yeew ay xar jox ñëpp nañ koy ñaar lu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp ndax moom alalam ŋàppaaru ci bëggeewu ci day defal nit ñi la tax yaa tax fi na ñi toog ñëpp ay am même bu ñu amul dina yëkkati xaalisam jox leen ko alalam bëgg même moo la nee kaay ñu ànd fi nga gunge ko dina yëkkati xaalisam jox la maam du ñëw nit du ñëw fii mu koy neenal ayda kenn musul ñëw fii ayda neenal la amut dina togg ay ñam di joxe dina jënd ay yàpp di joxe li gën a seer ki dëkk bi lay joxe ay ginaar ku xew ngeen suñuy waa lagee ku fa ngénte ayda luy lépp lu dem ci ngénte ba xar tudd bi xar tudd la koy jënd di ko jox nit suñu kër gee di ko defal ñëpp nag parcelle ba Cambérène ndax ñu ñoo dëkkoon nag moom démb tey soog a ñëw kon nag ñu koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaana gudd fan lu mu mën ren yàlla na mën lu ko déwal yàlla na ko sëñ Saaliw taxaw yàlla jàmm jàmbaale sëñ Saaliw bi kenn kenn dëgg la ndax léppam jàppale ñëpp ñëpp lay jàppale amul xaaji amul seen ba amul ku ñëw taxaw mu jox la ñu koy ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na mu yónni ko jërëjëf waaw. ay boy jaar nañ la. yal na yàlla nangu si yaar. tur bi nan la. Awa Seye Awa Seye ñu fekk la fii kër euh, soxna Aida a Serigne Saliou la grand voyante fii ci Parcelles unité 3 mm-hmm. mu joxe ay asaka mu joxe ay li nga xam ne mooy ndimbal la ci weeru koor mm-hmm. nan ngay gisee loolu kontaan ak mbégte rek mm-hmm. ndax nit am na li ne gàññe te génn bu ci asaka moom nag xàjjee bu amul kenn ku ñëw rek ci nga bokk ay ataat nag du ma ni ñaari at du ma ni ñetti at ay ataat te yamul ci lii kese tam xarit bi mi ngi joxe ay nagak yëpp ñooñu moo ñu jox ndawal ceeb yeeg soble dara manqué wul lu muy def moom wutu ci njistal pour dimbali doomu aadama yi rek moo tax mu koy def man nag du ma wax waxantu ndax damaa jàngal Quraan te dañu wax waaw boo dimbalee julit yàlla dimbali la te moom def na ay Aida daal amul problème amul dara dëkkandoo yaa ngi nii man biig la ma woo ni ma noo mënti def na nga ñëw ñëw jël ci xéwal bi. yàlla ak barke sëñ Saaliw mu mu yaakaar ak sëñ naa Isaa mi ma yaakaar yan nañ ko tuur xéewal bu baawaan ñëpp a fekk kenn bañ a lii daal bu ko ñëpp defoon ci Sénégal billaay kenn du tumu rànk ndax am na ñooñ bu wóor ni yàlla gën a teb lu ñu ndogoo tey amuñu ko. dëgg la billaay te bi nit ku wóor tànn ma ta boo ko joxee tuyaaba boobu kenn xamul nu mu toll lii rek la jullit am ci moromam lii rek. waaw weeru koor bu du weeru koor te da nga war a joxe sama weeru koor koo ci jox dundal ay Aida moom ci la dëkk ku ñëw diis ka ku ñëw ordonnance yaa ngi am na ñu tuddal doom waaw jeex na koon am na ordonnance yaa ngi euh, kii yaa ngi ndox yi fayu ndox yi courant yi yooyu yëpp am na man dama jànga duma jàng duma waxantu te lu ma gis rek laay wax ñoon daal xam nga ñu koy bàyyee yàlla ak Serigne Saliou rek yal na ko a diri rek di ko diri rek yal na teeru lu Serigne Cheikh Mbacke laay di wax da moom yal na teere ak ñu mu àndal ñëpp ak barke Serigne am yow tam jërëjëf kontaan naa si yow ci taxawaay bi lii rek moo fi am lii kese lii rek macha allah comme li mu yaay booy wax rek macha allah def lu baax rek moo war am na am ñoo xam ne tey seen i compte ay deux cent millions un milliard mu seen biir compte tey defuñu lii moo xam nga nekk Europe moo xam nga nekk Sénégal te sénégalais nga te dañu def te yàlla tax damay ñaan ñi nga xam ne tey macha allah adduna dafa jeex a pare lii rek moo ci am solo def lu baax comme soxna Aida Saliou le grand voyant li muy def def lu baax lépp loo am delluwaat ko jaamu yàlla yi parce que kat li nga mën a am fële fii nga ko mën a liggéeyee soxna Aida Saliou nag li muy def macha allah kenn ku nekk war na ko roy barke Seexul Xadim ñu nekk Europe États-Unis foo mën di nekk ci àdduna weer koor bu ñëwee loo amako tut dimbalal jaam yàlla yi comme yaay booy li nga wax sànq am na ñoo xam ne bu ñu wooree ba ngoon barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou bu ñu wooree ba ngoon amuñu lu ñu ndogoo da ngay gis 17 jot ñuy kuñ kuñi fu nekk woote téléphone fu nekk pour am lu ñu ndogoo kon yaakaar naa ku am lii tey macha allah sant yàlla bu baax a baax doo sant Serigne Aïda ma Serigne Saliou nag santal yàlla parce que Aïda ma Serigne Saliou lii mu joxe nii yàlla moo ko moom alalu yàlla la mais yàlla da koo jaarale ci loxoom pour mu jox ko jaamu yàlla yi waaye nag yàlla mën na ko jaay ci loxoom mu téego ko naj ko biir këram jox ko njabootam wala mu koy defee neneen waaye nag lépp da ko dara askan bi. yaay booy la man na loo liggéey ci àddina bi fay gaa nga sa àllaax waaw lu waay liggéey moom ngay fekk muy lu baax muy lu bon te moom mii yaakaar naan lu baax rek la fay fekk ndax am nañu ñu ko ëppale fuuf dëkk ak ñun te lekk ñu ci ñoom ñaar dërëm xamuñ ndax reer nga xamu ndax añ nga julli day sóoraale ñu mu dëkkaal. xamul ndax añ nga ndax waroo añ ba suur den nag nit ki nga xam ne lekkul loolu xam nga ne bàkkaar bu rëy la dégg nga si ndax yàlla dafa wax ne xayrukum ku gën ci yéen man taalam alquraan mooy ko xam alquraan mm-hmm. wa allamahu te di xam xamle te li muy def ñoo yem li muy def ñoo yam man daan ñaana maa ngi koy ñaanal rek mm-hmm. man mii man soxna Awa Sey mii mm-hmm. di jàng daara Cheikh Mbacke laay maa ngi koy ñaanal yàlla na man gi yokku lu mu yóotu yan na jot yan na dund ba am ñaar téeméeraat yow mu koy filmé yan na nga am ñaar téeméeraat yow muy waxandoo ak man na ñaar téeméeraat billaay wallaay taalaay naa ko ci barke Seydina Isa Ro wallaay Isa loolu yëpp moo ko waral jërëjëf maa ngi koy ñaanal jërëjëf yow tam jërëjëf kontaan naa si yow jërëjëf. jërëjëf macha allah. boole siyaar gi man Ndeye Diop laa tudd. laa dëkk. xam naa ku baax. ku baax ku la ku tabe la. ku bëgg Serigne Saliou oh. ak Serigne Fallou Mbacké. ñoo ngi koy ñaanal lu mu mën ren yal na mën déwén lu ko ëpp. moo xam Mohamed. tey ñu gis macha allah mbooloo mi bëri na fii ci kër Soxna Aida Saliou tey ngir ay teraanga mi joxe teraanga yi nag joxe wu ko pour pukkaraay joxe wu ko da koy joxe ngir euh, jëmu yàlla ji da koy joxe ngir yàlla moo ne loo am euh, na nga ko bokkoog nit ñi tey muy koy bokkoog nit waaye nag mu commencé ko ci koñam parce que nit ki baax. da nga koy commencé sa biir kër lañ wax tey mu commencé ko ci koñam premier jour tey mu joxe ay teraanga ci weeru koor bi du ma teraanga sax mu joxe ay ndimbal ci weeru koor bi tey yow nga dëkk ci koñ bi tey boo ñu euh, euh, ba say woom tànk. waaw mm-hmm. mbay ci say mm-hmm. bu dee da ngay def lu baax dale ko say bokk jëm ci jaamun ñi waaye dafa maas noonu gi laaw la cet yal na yàlla fal ko cet mm-hmm. loolu lañ koy ñaanal guddi fan ak wér gu yaram Serigne Saliou mi yaakaar Serigne yal na taxawuñ ko. ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm asalaam. xarabuñ kenn yaay booy mais am na ñoo xam ne tey ñoo ëppale soxna Aida mu Serigne Saliou seen compte boo demee tey cent millions deux cent millions trois cent millions ba un milliard moo xam nga nekk senegal moo xam nga nekk bitim réew te ngay sénégalais aussi rawat na ngay julit ak xan nekk taalibe Serigne Saliou wala nga nekk taalibe Serigne Touba wala nga nekk taali maam El Hadj Malick wala nga nekk taalibe euh, euh, Balaye wala nga nekk taalibe Niassène tey wër ay milliards. te war a dimbali jaamu yàlla yi mais nga teg ko sa compte ñooñu tey lal ngeen di wax. ma ne ku nekk ak yëfam waaye ku nekk ak paxam. Hmm. lu waay def ci lu baax ku nekk waaye ku nekk ak paxam. wallaay wax nga dëgg. lu waay def ci lu baax yàlla dina la fay. Hmm. bu la neexee dawal say oto am say million tëdd ci. Hmm. bu la neexee am sa fukki dem bokk ak jaam ñi. yàlla lay fay ndax yàlla ko lebal mu fay la. te ko lebal benn fukk la lay fay. waaw asalaam. soxna Ayda de yaakaar naa fukkam yi mu am bool bokk na koog doomu yàlla jaamu yàlla yaakaar na tey nag macha allah xoolal ma tournel tuuti topp ma xoolal nit ñi macha allah rang bi gis nga depuis 10 heures ba léegi ñu ngi fi mais mënuñoo jeexal li nga xam ne mooy lim bi te tey la premier jour bi nga xam ne moom la joxe te nag lii muy joxe nii barke Serigne Saliou ci ñaqam la jóge ci poosam la jóge ci bankam la jóge yaakaar naa bu weeru koor ñëwee lépp lu mu dencoon koy génne mu def lii tey fii ci buntu këram. waaye comme li ma wax chaque jour rek kam na koo xam ne su ma waxee ñaari baat ñett du ma ko mënu ma ko muy kan le centre du peuple le centre du peuple kan la waali Balago Seck doomu Papa Thione doomu Jaaga doomu Soxna ay Aïda Saliou le grand voyant boo demee këram du mën a weeru koor mais 12 mois yi saa yoo demee kër Waly Balago sekk dangay fekk mu fees dell ak ay nit comme nii barke Serigne Saliou li mu am ci ñaxam li mu am lépp da koy génne di joxe barke Seexul Xadim factures yi ñoom problème location ñëpp kooku mooy kan Mariasine suma centre bi le centre du peuple le soir du peuple ki nga xam ne tey moom la réew mi tiitaroo moom la Sénégal tiitaroo mu jël drapeau Sénégal nag wax dëgg yàlla ci musique bi yóbbu ko fu nekk ci musique bi maar ñoo ngi la ñaanal lii sa yaay ji def macha allah ndimbal bi nga ñëw ci incha xam naa di nga ñëw parce que yàgg nga koo def même bu dul weeru koor da ko doon jox mu jox jaamu yàlla yi parce que yow la tiitaroo nga koy sagal sama yaay mu lay woo baax a baax ci ndimbal bi incha allah ci kattanu yàlla Ibrahima doxalal. élément soxna Aida Saliou lañ euh, soxna Aida Saliou le grand voyant nekk fii ci parcelle kii ma jàkkaarool yaakaar naa doomam la caatam la léppam la euh, ziar naa la. nañ ziar bu wér. <laughs> ñu ne kër gi dana la. <laughs> waaw la suñu lépp la may magam. soxna naa def. maa ngi fi tur bi di yaay doom tey ñu gis sa yaay macha allah yaakaar naa min nañ lii ñu gis sa yaay def ko gisee tey. ah kontaan yàgg na koo def. Hmm. lii du benn yoon. xam nga rek bu defee tamit dañ koy ñaanal yàlla ñu ko ba ci kanam mu continuer ko tamit ba ay doomam ko ci li muy def daal. tey muy def nii macha allah yaakaar naa muy defar lii sax la wax xam ne Aïda Saliou mu Serigne Saliou le grand voyant ci lii lay def chaque jour mais gis nañu aussi tam bu ñëwee ci kër gi souvent dañuy fekk ay jàpp ne ay client lañ mais duñu ay client dañuy xaar ñuy facture courant ñuy ordonnance ñuy ay problème location ay yeneen ak yeneen tey loolu yow en tant que doomam nan la lay def bu jël xaalisam di ko ñukki di ko jox ñi nga xam ne du ñuy doomam yow est ce que doo xool non même pas mbégte la donc parce que xam nga nit moom lay def lu baax dañ lay ñaanal yàlla mu continuer xam nga rek moo tax moom moom li muy def ci lu baax du benn yoon du ñaari yoon chaque jour nga gis lu nekk mais dañ koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi koog sagoom ak Serigne Salim Mbacke bi mu yaakaar mu yegaleeg sagoom. kontaan nga daal. bu baax. Ah, incha allahu fi yàlla bàyyee lépp dinañ lu mu def dina bëgg nañ koo duble pour def lu mu lu mu mën daal ñu def ko loolu daal lañuy ñaan yàlla incha allahu rabi merci. maa ngi taxaw kenn koo xam ne yaakaar naa euh, ndong la ci kër gi doom la ci kër gi lépp la ci kër gi. mu nekk Soxna ayda macha allah moo sol titre bi nii macha allah nekk ci liggéey bi lépp nag liggéeyal yàlla liggéeyal Serigne Saliou ku tedd ka macha allah liggéeyal Soxna Aida Saliou le grand voyant na def. waa ngi. da ngay ziar la. Malick. Malick euh, tey ñi fekk la fii kër Soxna Aida ngay doomam di taalibam di léppam tey muy def lii tey nan nga ko gisee ak euh, liggéey bi nan la ah am kontaante rek kontaan wu fort rek mais lii moom du tey rek la koy def chaque jour rek da def. loolu moom loolu moom daa bokk si jikko moom social jàppale nit ñi ba si kii sax moom su la déggee sax nga feebar sax balaa ngay def dara tool ak sama mbokk di ñëw moom mooy njëkk a ñëw jàppale la moom loolu moom du kiyam. tànk am na ku ma laaj tànk mu ne am na ñoo xam ne xale yoo xam ne mu leen yor ci kër gi xamul sax seen yaay xamul seen dara dañuy ñëw rek am problème mu jël leen dugal leen ci euh, maanaam euh, ñu jàng métier mu yor leen. waaw. moom kum jis rek da ngay jàppee ni doomam da lay conseiller di la lu baax mu dugal la si lu bon mu jëm la see génne moom loolu moom jikkoom la moom. parce que am na xol bu rafet boo xamante ne kum jis rek da koy yemale ak ma moo tax kum gis rek da lay jéem a xëcc si kër gi pour teg la si yoon bu baax bi loolu rek. kontaan nga loo ko ah nga ñaanal mu yàgg fi rek ak xéwal yi gën a yokk rek ba mu mën nga koy def chaque année rek. waaw loolu rek laa xëy ñaanal ma échange sama xol dafa sedd quoi moo tax mënu ma wax sax. jërëjëf allah am na solo kon ñu jël keneen rek keneen yaakaar naa mu ngi nii soxna si ñu ngi lay ziar baax a baax a baax wàccal ma yére bi kaay na def. maa fi tur bi nan la. Ndiira Ndiira Laay. waaw Cambérène. Cambérène. mais mhm. gis ngeen ñu toll nga sant soxna Aïda. soxna Aïda le grand voyage. la boo ñu wax ci xanaa di ko sant ak gërëm rek. Mhm. wax dëgg yàlla di kontaan ci moom. ci lu muy def ndax lu muy def amu ci xaaj ak seen wax dëgg yàlla nit ku baax la ñu koy ñaanal yàlla suñu borom mu yokk xéewalam yokk xam-xamam ndox moom bu amee ñëpp am xoolul tiijaan xoolul ñeseen xoolul laayeen morgu laayeen bi moom moo koy fay courant bi ak ndox mi ku nit ku baax la ku baax la soxna Aida ñu ngi koy ñaanal bu baax lu mu man ren bu déwénee yàlla na man lu ko raw barke Baye Laay macha allah soxna Aida mu ngi ci euh, facture courant yi mu ngi ci ndimbal yeeg lu nekk tey <laughs> gis nga macha allah ku fi ñëw tey am nga tey en tant que yow dëkk moom nekk ak moom ku am fulla macha allah. sa bopp tey ngay ay rek lan nga gis si moom ba tax nga ànd ak moom. soxlaay dama gis si moom fulla ak jom ak jàmbaar man naw ko torop mu aay nag torop ci nitam dafa aay ci nitam. aay ci li muy def aay lu aay ci liggéey aay seet aay seetul baaxul aay ci lépp macha allah aay ci pomade yi kenn du moom <laughs> aca doxalal na def maa ngi fii la man may mun a fay may mun a fay waa euh, tey soxna man Cambérène laa dëkk Cambérène soxna Aïda loo xam ci moom soxna Aïda baax social man si ku feebar man si ku toog sa amoo fa dara mu yëkkati jox la boqal la si ruqani la demal te bu si kenn xam dara yëkkati jox la te du si boolante wax ku sa doom feebar moo si gën ku sa doom nekk si ndog-ndog moo si gën man mii feebaroon naa fi yor problème mu tànk bu dul woon moom fi ma toog du ma fi jug bu ma doon wàcc sama lal sax damay sonn waaye dafa yëkkate xaalis jox ma bi mu yëkkate xaalis jox ma ma faju faju ba tey ji bu ma mënee ñëw fii yàlla ak soxna Aida la yàlla ak soxna Aida la ba pare nag téye sama rakk maa moom ñoo bokk ndey ak baay mu téye ko rek def ko comme rakk ju mu bokkal ndey ak baay rig jooyul nday jooyul baay xëy na ñàkk na nday ñàkk na baay tey waaye ñàkkunu nday ñàkkunu baay ndax soxna Aida soxna Aida ñu ngi koy sant di gërëm lu mu man ren yal na man déwén lu ko raw ni ngi koy ñaanal njabootam yal na dem ba njabootam lu mu fi ñàkk yal na dem ba njabootam remplacé ko ko si barke sëñ Saliou ak barke Serigne Babacar si mi ñu yaakaar soxna Aida Saliou mu ngi noonu jàmbaaru Serigne Saliou ja kon li may wax chaque jour ci barke Serigne Saliou sa jàmbaar ja macha allah tey fa mu tëdd soxna Aida sa jàmbaar ja tey kontaan na parce que lii la bëggoon képp koo xam ne dafa bëgg Serigne Saliou képp koo xam ne da ngay sagoo Serigne Saliou rek macha allah nga nekk ci yoon bi nga ne moom la Serigne Saliou bëgg moom la Serigne Saliou nekkoon muy lan dimbale jaamu yàlla yi te yërëm ndaw ñi loolu la Serigne lool def saa su ne soxna nag tànk yooyu la jël maa ngi lay ñaanal ci barke Serigne Saliou sama jàmbaar ja borom xel koom borom gottang buur borom ron ka ca Serigne Saliou sa jàmbaar ji mu ngi ci li nga ko tegoon muy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal waaju baax liggéeyal yàlla suñu borom parce que lii kat liggéeyal yàlla suñu borom la damay ñaan ñi nga xam ne ñooru tut ñu bokkaate am yërmande parce que kat a ah, adduna bi dafa jeexkat loolu rek moo nekk ci adduna bi léegi barke Serigne Saliou def lu baax roy lu baax wax lu baax bàyyi yàqante bi bàyyi defante lu bon li bàyyi liggéeyante lu bon li barke Serigne Saliou jëmu ji kat jar naa roy de soxna Aida Serigne Saliou le grand voyant nekk fii ci parcelle nday yaay booy ndeysaan da ma bëgg suukar si lu ma jox rek baax na lu ma xamee ci koor gi. nga am waaw incha allah soxna Ayda maa ngi ñaan li ma joor maa ngi ñaan li ma xooree waaw maa ngi ñaan li ma xooree waaw li ma dogee waaw waaw da ngay am barke Serigne Bamba yaay yaayam yaay léppam waaw ndeysaan dégg nga ki li mu wax macha allah dama koy ñaan lu ma dogee dama koy ñaan lu ma dogee xaaral kaay kaay kaay Ibrahima jëlal lii daw na yaram kaay kaay toog nii ñu jox la loo doge kaay xaaral ndeysaan jëwrin kaay nii. la. yaay booy ndeysaan waaw mag la nee mu ne dama ko ñaan lu ma dogee ndeysaan xaaral. voilà xaaral xaaral. bokkoo woon ci rang mais da di jaay rek. benn ndaw ne ma kaay jël sa wërsëg. maa ngi leen di ñaanal yal leen yàlla may fan wu gudd yàlla def xiiwal bu baax waay sant naa. macha allah xam nga kii joxe lii xam nga kan la. Aida soxna Aida soxna Aida mu Serigne Saliou le grand voyant ki nga xam ne lu mu seetul baaxul moom moo am lépp loo xam ne am na ko da ko delloo askan wi tey lan nga koy ñaanal soxna Aida yal na ko yàlla defal li mu bëgg ci ci njabootu maam borom Touba maa ngi koy sant di ko ñaanal. kontaan na nee na maa ngi koy sant di ko ñaanal ngeen jëmm ji dafa romb di jaay macha ngi noonu dem ak saako ceebam mu teg da ko jël si waat léegi nii dafa romb di jaay rek gis ñu ne ko kaay muy wërsëgam mu ngi yoroon ay euh, mu ngi li nga xam ne mooy ay ay njaq xaw ma ay lan di jaay ay ay ay ak ay buddeel di ko jaay mu ngi nii gis nga lii la yoroon di ko jaay kaay mu ngi nii jëlal ma jëlal ma ko lii la yoroon di ko jaay soxna saa nii bagage yaa ngi lii la di ko jaay léegi nag bi mu ñëwee mu romb ñu ne ko kaay jël sa wërsëg bi mu ñëwee jël jël wërsëgam am na saaku ceeb am na buddeelu diwlin am na tàndarma am na li nga xam ne mooy suukar am na li nga xam ne lépp day dem ci togg te ceeb bi tey lii ànd ak ceeb bi am na ko. kon yaakaar na lii mooy def te yàlla tax muy soxna da mu Serigne Saliou xajjul amul xaj ak sen waaye nag da koo commencé li nga xam ne ay dëkkandoom la parce que boo jëf kër lu baax da ngay jëf commencé si sa biir kër ba pare mais nga am sa biir kër di jëf lu bon di jëf lu baax di ko jëf ca àll ba bàyyi sa biir kër non soxna Aida dundewul noonu da jëf ci biir këram pare comme li mel wax sànq be bay sawewu ku dégg olof nga wax ko bay sawewu sànq soxna Aida Saliou loolu lay def kon soxna Aida Saliou maa ngi ñaan ci barke Serigne Saliou yal na ko Serigne Saliou yokk yal na ko Serigne yokk lu mu fi ñàkk ren du ñàkk sax ñàkkul dara parce que kuy def essence yi mu ngi def essence yi moom mu ngi duy ci ci ci nga xam ne mooy xàndeem mu ngi duy ci li nga xam ne mooy xàndeem moom soxna Aida Saliou ñu ngi koy ñaanal na ci barke Serigne Saliou yal na ko yàlla yokk ci barke saaliw Saliou jërëjëf